Organisation nationale des droits de l'homme, dont j'étais vice-président, et la présidente était Mamba Signa, qui était également ma patronne de stage, finalement mon associé. Donc, euh, je suis un, élément de la société civile, je suis un défenseur des droits de l'homme, et je le revendique. D'autant plus qu'il s'agit de la lutte contre la corruption. Et je considère que le principal handicap de nos pays sous-développés, c'est la corruption. c'est vrai que le Canada a fait des pas dans la mise en œuvre de la Convention, mais c'est heureux aujourd'hui que vous mettez au devant de la scène les femmes. D'abord que les femmes sont majoritaires au Sénégal, mais ensuite, je le dis et je l'assume, les femmes sont plus engagées que les hommes. Donc, euh, si on met au devant les femmes, comme ma marraine qui est à l'OFNAC, qui est aussi avocat, cela me rassure. En tout cas, on attend beaucoup de la restitution de votre étude et nous aurons l'occasion de dire, de faire nos observations sur cette question, de faire des, des, des recommandations éventuellement au gouvernement pour que la lutte contre la corruption et la concussion euh, soit prise en charge principalement par les femmes, mais par aussi le gouvernement. Parce que si on y prend garde, les ressources qui nous permettent de développer sont souvent détournées. Ça, tout le monde le sait. Et qu'il n'y a pas assez d'engagement, je, je, je, le pense, euh, en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la concussion. Souvent, on voit des gens euh, qui occupent certaines fonctions qui subitement deviennent très riches. C'est pourquoi le délit même d'enrichissement illicite est un délit extrêmement important mais sa mise en œuvre n'est pas encore satisfaite. Les rapports aussi de l'OFNAC sont faits, sont réels, mais ne sont pas souvent suivis d'effets. Alors je parlais avec quelques hier, je crois, de ce, de ce sujet-là. J'ai remarqué que l'ancien régime, le président Abdoulaye Wade, avait eu quand même à mettre en prison des responsables de son parti. comme le directeur du port, comme le directeur de la LONAS, etc., dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le dire. Et je le dis et je l'assume. Et ce ne sont pas les détournements qui manquent. Et ce ne sont pas les rapports qui manquent. Donc j'attends de cet atelier quand même euh, de, une restitution franche, objective, pour permettre quand même au gouvernement d'avoir des recommandations issues de cet atelier pour prendre en charge entièrement la lutte contre la corruption qui est un des principaux fléaux de ce pays. Je vous remercie, monsieur le ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg Digital Store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark x di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te ci gën a ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo kok ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien